در لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بظفر ña nga woon démb ci xéwali yàlla yam xéwal ay jaamam ca aljana nga xam ne bañ duggee aljana ñoom jaam yàlla yi nga xam ne ñooy jaam yàlla yu sell yi yàlla tereel na leen ci aljana ñi nekkee fa bànneexu rek lañu ñu nekkee ci ci aljana de aljana ñooñu aljana lii rek lañ nekkee lekk ak naan ak sëy ak sant yàlla ci loolu rek ci lañ nekk rek ñooñu aljana ci xéewal yooyu rek ci lañ nekk duñ julli duñ oor duñ jëf jaral lu leen di sonal dara duñ ko def de lekk naan sëy wax alhamdulilah ci loolu rek ci lañuy nekk rek ñoom waa aljana de ñoom nag bañ nekkee ci aljana moo tax ña ngay laajante ñoom i neen de nekk ci xéewali aljana xissa bi nga xam ne moom lañ jàngoon ca saaru kaafi seen mottilee nii nii de xaala wax xaayilun aji wax minum ci ñoom ñi naka man kaana nekkoon na lii ñeel ma xarinun xarit de ca àddina boo xam ne daf daan weddi ne dekki amul mooy wadrib lahu mathalan rajulayni ah, jaalna li ahadihima jannatayni min aanabin wa xafafnahuma bi naqlin wa jaalna baynahuma zar'an ñooñu seen xissa waxoon nañ leen ne daneen ko mottali ca saaru wa saafaat yi hmm. moom la ñuy mottali nii de ñaari waay lañ woon boo xam ne ñoo nekkoon ci àddina kenn ki gëm kenn ki gëm ne àllaaxira dana ñëw dekki dana ñëw kenn ki gëmu ko de kenn ki lépp lu mu amoon jox ko yàlla ngir di xaar aljana di xaar dekki dana yàlla dana ko fay kenn ki moom gëmu ko woon de nekk ci lu ko neex rek weddi yàlla de bañ demee nag ba dugg ba péncam yàlla taxaw dekki am moom yàlla dugal ko aljana mu toog ba ci yàgg wax ne mu wax mu wax xaritam yam nekkoon ak ca aljana ne leen man de amoon naa benn xarit boo xam ne mi ngi woon ci àddina de dafa weddi woon dee dafa weddi woon ne dekki dafa weddi woon ne dekki am na loolu la weddi woon moo tax mi ne xaala wax na xaayilun aji wax minum ci ñoom nii naka man kaana nekkoon na lii ñeel ma xarinun xarit de yaqulu koog dana wax aan naka naka yow la min as-saadiqiina aji bokk nga ci woy dëggal ña dekki ayda mit naa ndem dee nañu wakkun naa tañ nekk turaaban di suuf man ak ya inna naka ñun lama diinuuna ñuñ ñu ñuñ fay lañ ah mu ne moom xaritam bi loolu la ko daan wax naan koy bu ko waxee dekki dana am mi ne ko kon yow yaa ngi ci yëbi jaaxaan yooyu yooyu gëm nga ko yooyu gëm ko ñin buñ dee ba nekk suuf nekk ya ñin ndax kenn mën nañoo kenn mën nañoo fay de kenn mën nañoo dekkilaat ba ñuy fay ah yaa ngi wax loo xam ne dara du ci dëgg de moom loolu la ko doon wax bi loolu amee nag bañ dem àllaaxira ba dekki am moom mu dugg aljana kee dugg safara ah xaala wax moom aji wax ja wax ay xaritam yan nekkan ci aljana ne leen al antum ndax du yéen ki al antum ndax yéen muttaliuuna way yundu ngeen ki ànd ak man de eh, eh, duñ dem ñi ànd ca aljana duñ dem ñi ànd ca safara ma yundu ma yundu sama xarit ba ma àndoon ba ma amoon ca alja ba ma amoon ca àddina te mu weddi ne dekki am na ma wé xool ci lu mu nekk de ah bi loolu amee ah xaritam yam nekk ak ca aljana ñu ne ko déeréet ñun kay duñ dem mukk di yundu ay safara ñun bàyyi ñi ca aljana dañu ñu demul moom nag mu dem de fa talaatam yundu faraaw tam gis mbokkam ma fii sawaa'il jahim ca diggi jahim de mu yund mu yund nag ci fenêtre yi aljana rek gis mbokkam ma ma ngi ca digg safara ñu ngi koy lakk de lakk yu métti de xaala mu wax ñeel ko ngir ndokk ko ne tallaahi ngëñ ak yàlla um kitta naka jege woon nga la tur diina di xalak sama de di di ma xalak de tuutee des rek nga xalak walaw laa rab rabbi bu taxtoon ak xéewal ak borom sama ci gëm yàlla la kuntu kon dana ma nekk minal muxdarina ci ñu teewal ñi ci mbugal ma de mu ngi koy wax nag di ndokk bàyyi mi ne foofu rek la ndokk amee njëriñ nag foofu rek la ndokk amul njëriñ waaye nit bu dugg gur aljana warta ndokk kenn warta wax kenn warta xas kenn diw sawara la jëm nangam ak nangam waaye da ngay xaar kay ba dugg nga soog kaa ndokk waaye yeneen ci àddina deewagul yow yaa ngi dund mi ngi dund bul bul wax nit mukk xool ko nee na kii lu mu bonee nangam ak nangam safara la jëm déedéet loolu yàlla moom dugalu ci kenn de mbiri yàlla la moom dugalul ci kenn ci mbiri safaraam ak aljaraam dugalu ci kenn mbiri wërsëgam ak ñàkkam it dugalu ci kenn mbiri dee ak dundale moom itam ñeent bàyyi mi ne juróom yooyu juróom benn yooyu dugalu ci kenn dugalu ci kenn moom moo ko téyal boppam de moom mooy joxe kuñ am ku am moom moo la jox kon mbindee fi ñàkkaluñ la waaye diwoo ma liggéey ma ñàkk déedéet loolu amul de wala man dama am diw moo ma dimbale ba ma am déedéet yàlla moo la jox de ah diw ah, ah, boo moytu diw dana la rey diw mënu laa rey yàlla rek moo la man a rey diw dana la dundal déedéet yàlla moo mën a dundal de yow diw dana la yóbbu aljana déedéet yàlla rek moo mën a dugal nit aljana waaye Cissé nit na ko yow tamit da nga dugg safara déedéet kenn mënta dugal kenn safara de loolu yàlla bàyyi ne yàlla ci loxoom la ko téede moo tax mu waxoon loolu na ko walaw laa ni'matu rabbi bu taxutoon ak xéewal borom sama kon la kuntu dana ma nekk tay minal mu'darina ci ñun teewal ñi ci mbugal ma de waaye nag man yàlla xéewaloon na ma ba ma gëm yàlla de afama afama nahnu déet ñun bi may ñoom awaa aljanna bañ nekkee ci aljanna xéewal yi neex lool ñu ne afama nahnu déet ñun bi may yiti na ñuy way dee illaa mawtatana ndere dee suñu luulaa kay aji njëkk de ah ñin nag dootuñ deeti xeweli aljana yi bari na neex na ña ngi ca nekk ñu ne ñin nag dootuñ deeti lu dul dee gañ deewoon rek beebu moom la ñuy dee de waaye nit du dee ñaari yoon mukk benn yoon rek lay dee de ñu ne moom dee dootuñ ko dafa dal lu dul dee gu njëkk gañ deewoon ca àddina àllaaxira moom duñ fi dee de dañuy toog di xewlu rek di bànneexu rek di bànneexu rek ci loolu rek la ñu ne foofu la ñu nekk di bànneexu di bànneexu bàyyi mi ne ba ëba dellu ci asal de wa ma nahnu te ñun bi mu azab bi ne ñun ñu mbugal de te duñ ñu mbugalati nag jeex na duñ ñu mbugal mukk naa daanaka loolu ñu tudd eh, eh, ci aljana ci ñooñ aljana la huwa moom alfawzu mooy texe alazimu gay aji màgg de lii nag mooy texe bu màgg na ñoom nag ñu ne dëgg-dëgg ñu ne waa aljanaa ko wax ñi lii daal dëgg-dëgg mooy te mooy texe bu màgg daal lii daal mooy texe bu màgg de yàlla wax wala ñu ne waxi cag waxi gaaye ba tey waa aljana ne li li misli haada kem li lee fal yaamali na jëf al aamiluuna way jëf ni li misli haada kem li de kuy jëf daal na jëf li la de kuy jëf na jëf lii mooy gëm yàlla ak ragal yàlla ak topp yàlla képp koo xam ne kuy jëf la na jëf loolu ndax loolu rek moo la mën a dugal aljana de azalika ndax loolu ñu tudd xayrun moo gën nuzulan ci berne am shajaratu zaqumi wala garab ak zaqum nga ca safara de xéwal yi nekk ci aljana loolu ak ak ak ak garab ak zaqum nga nekk ca ca safara ana lii ban moo ci gën de inna naka ñun yàlla jaal naa def nañ ko fitnatan mu di nattu li zaalimiina ñeel way wéddi ña ci ñooñ màkk de garab ak garab googu yàlla def na ko mu nekk fitna ñeel ñi nga xam ne ñoom ñoo weddi yàlla de naa naka moom naa naka moom sajaratun garab la a taxruju dana mu génn fii aslil jaxiimi ca xoot xootab jaxiim de tal oha meññetam ka annahu bi njàngoor la na noonu la ko moom ruusu shayaatini bopp bi njàngoor la de ne noonu la ko maa wala jàpp laay firé kon loolu mooy firi de ah, ñoom nag garab ak zakkum googu buñ demee ca safara ñoom waa safara garab googu moom la ñuy lekk de nga xam ne garab gi ay meññetam comme boppi ñàngoor ni boppi ñàngoor ma meññetam yi noonu la mel noonu la garab ga mel de waaye noonu naka ñoom yéeféer yi la aakiluna way lekk lañ min haa moom danañ ko lekk de te duñ ci ànd ak mëtt rek dañ koy lekk ba suur fa maali oona way feesal lañ min haa ci moom albutuna biir ya danañ fees dañ ci feesal seen biir de du ma indi loolu topp naka ñoom te alayha ci moom la la shawban ak naan min xamimin tukkeekoo ci ndoxam njëgg njëgg de ñoom nag garab googu moom lañu lekk buñ ko lekkee ba suur nag yàlla indi leen uh, uh, njar njar moo xam ne njar mi dëtt la ñi jël ko yàlla jox ko ñu naan ko de te ko naan force de abu jaalin ne dégg leen muhammad waay wax ne uh, garab buy sax maanaam safara garab buy saxaan fa garab goo xam ne mi ne safara goo xam ne dafay lakk ay doj garab ga fay sax safara naka lay lakkee ay doj garab di ba sax hmm? mu mi ngi leen di dëkk mi leen di loo xam ne dara du ci dëgg ay nar la safara naka lay lakkee ay doj ba pare di ba saxal garab hmm? loolu lu mën a nekkee bàyyi na dafa réer de xanaa xamul ne yàlla mën na lu nekk te safara lu bokk ci moom du ko lakk lu bokk ci moom rek lay lakk te sa sa garab googu garab ak zaqum googu ci safara la bokk ci safara la bokk de moo tax gannaaw ci safara la bokk safara du lakk lu bokk ci moom mukk waaye lu bokk ci moom rek moom lay lakk rek dafa réer rek moom dafa xamul te loolu moom du xam mukk loolu fekk damul ko pencam yàlla la koy soo xam de wax nag ne bu jigéen ne ko da ngay da ngay ut tàndarma bu tooy da ut tàndarma nga nooyal sotti ci lem def ci diw daa bu ma la waxee ne la indi zakum rek bu a leen zakum rek indi ko mu invité xaritam yëpp mu toog ba ci yàgg rek wax ndaw si ne ko zakumi nii indil ma zakum bi mu indil ko ko mu taaj gars yëpp di lekk mu ne leen zakum gi leen Muhammad di dëppoo gi nii ñu ne ah ku nekk mën na cee jàpp lii ku ne mën na cee jàpp waaye loolu. li yàlla wax ne naa jaalnaaha fitnatan li zaalimina def nañ garab googu muy fitna ñeel woy weddi moom fitna la ci ñoom de ci ñoom waaye lool moom moom lañuy lekk moo tax buur ne fa maalikuuna way feesal lañ min haa ci moom albutuuna biir yi summa inna lahum topp naga ñeel ne alayhaa ci moom la shawqan am na am njar min hamiimin mu tukkee koo ci loxom njëgg de ñëgg de summa inna marji'u summa inna marji'uhum topp naka delluwaay seen day dal jaxiim jëm na ca safara de ñoom nag buñ lekkee ba pare ca ndoxam dëtt ma na lekk ca lekk ca meññetam ma meññetam saqu meññetam bu bonum lekk ci ba suur dañ leen di jëm safara de ñu leen lakk rek ba lekk jëm ñu génneewaat leen noonu lañ leen def moom métti na de lu waral loolu nag innahum naka ñoom alfaw fekk nañ abaahum ay baay seen daal li nañu di way réer fahum ñoom yoxraxoona danañu gaaw ala athaarihim ci jeexiti baay seen de ñoom nag li ko waral mooy dañoo fekkoon seen bàyyi réer ñoom ñi ñëw topp seen jeexiti bàyyi de ba réer ànd ak ñoom de bàyyi mi ne dinay bàyyi ngoog yàlla na baax waaye néew na bu ci muccee de yéeféer lu leen dugal safara lu leen teg mbugal mi yëpp mooy inna wajanna abaana ala ummatin wa inna ala aatharihim muhtadun ñin lañ fekkoon suñ bàyyi nekk ci rek loolu la ñuy nekk de di sax jubut ñoom ñoom ci la nekk moo tax diinay bàyyi yàlla na baax de diinay bàyyi yàlla na baax ndax néew na bu ci doom muccee de wala qad adalla ah wala qad dalla na qablahum njëkk seen aktaru lawalina ñu gën jaa ci ñu njëkk ña de ñu bëri nag loolu réeral na leen de mooy topp seen diine bàyyi rek te seen bàyyi juwuñ woon nekkul woon ci njub ñu topp seen diine bàyyi ba réer de wala qad arsalnaa ñun de yónni nañ fiihim ci ñoom mundirina way waare de te mooy yónnantu ya saaru màkkaa ngoog nag foog dana indi dana indi tekki ba pare dana indi yónnantu yónnantu yi de isaa yónnantu yi jiitu woon moo tax wala xel arsalnaa yónni nañ fii ci ñoom munzirina wooy waare te mooy yónnent yi fandur seetal kay ba kaana na kay nekkee aqibatul munzirina mujjëg ñuñ waane ñu weddi de illaa ibadallahi dede jaam yàlla ya almuxlasina way sell lu dul jaam yàlla yi nga xam ne ñoom sellal nañ yàlla de mu njëkkee nag noo wala xat wala xat naa ñun nuuxu noo yonent yàlla noo xoo nañu ñun de yàlla yónni na yonent yàlla noox mooy njëlbéenu yonent yi yàlla yónni ko ca dëkkam mu leen di waar ñuy bañ léeg-léeg ñu jël ko jàpp ko dóor ko sonal ko ba mu métti sànni ko ci àll buñ toogee ba ci yàgg rek mu ñëwaat de sonal ko lool mu ci gi nag mu ñaan yàlla ne rabbi inni maxdubun fantadir yàlla nit ñi tooñ nañ ma nit ñi gas nañ ma ëpp nañ ma doole dimbale ma rabbi laa tazar alal ardi minal kaafirina diyyaaran de yow yàlla bam ñi ñaanee nag moom fa la neex ma kaana al mujibuuna way nangu ñu ñaan te ñu la de dégg nga moo tax mi na fa a neex ma kaana al mujibuuna way ñaan ñu te ñun la de way nangu ñu ñaan te ñun la bam ñu ooyee moom noo bam jaaxlee dem ba nga xam na toll na ci situation bu métti boobu bam ñu ñaanee rek dañ ko uy ñëw dimbale ko de wan na jee naawuteeg musal ko moom noo wa ahlahu am ñu ñoom ñu minal kër bi ca njàqare al azimi gay aji màgg de te mooy gaal ga nga xam ne yàlla xettile woon na ko mu xetti ko ñu ñoom dugg ci ñoom ñëpp ci lañ muccee de wajaal naa te mujjal leen wajaal naa te njëm zuriyatu ay doomam mu ñoom al baaqi nañu di way des de comme nañ jàngatee woon kiste yi jàngoon nañ ko moo tax sax da ngay gis alquran ba mu koy na daf koo léem rek mu dem ñoom nag ah Noox ko yàlla yónnee nitam ñu bañ yàlla xeeti loo ko gaal mu xeeti gaal gaal ga nag képp ku bëgg mucc rek dugg ci képp ku ah, ah, képp ku weddi rek doo ko dugg rek ba ñëpp duggee ci gaal ga nag yàlla xalak ñëpp yàlla xalak ñëpp ballal suuf asamaan di génnee ndox suuf balla ndox lépp di génn ndox ah, kenn du mucc rek lu dugg ci gaal yonent yàlla Noox ga moo tax yàlla ne wa najjaynaahu wa ahlahu min al-karbil aziim gannaaw nuux nag bañ waree bam bam bañ bañ waree ca gaalam googu ñëpp dugg mboolem xeet boo xam ne amaan na ci àddina rek duggoon na ci gaala yonent yàlla noox gi de bépp boo xam ne gisuñ ko ci àddina rek amutoon ci gaala yonent yàlla noox moo tax ñu koy tuddee aadama saani de mooy aadama am ñaare gannaaw yonent yàlla noox nag ah, gannaaw gaala yonent yàlla noox ah, ñëpp a jërmel kenn mën sa am doom lu dul ñetti doom yi mu fi bàyyi woon moom moom moom noor muy saam ak xaam ak yaafit ñetti doomam yooyu ñoom ñoo juraat àddina bi yëpp de saam moom moo jur dënkam orifa mooy arab yi ak ruum ak faris ah, ah, ki moom moo jur dënkam sabaqa mooy saqalifatu ak barbar ak xibt yaafis moom moo jur dënkam siitu a a a a siitu mooy mooy mooy sa xaalibatu ak yaa jooju ak maaju ak mooy sa xaalibatu ak ak maaju ak turki a sabaqa dama joon moom moo jur suudaan suudaan ak barbar ak xibtu de doomi yonent yàlla noox yooyu ñoom ñoo dundalaat àddina bi de dundalaat àddina bi ba àddina bi waa tolloon nii de waaye gannaaw gaa la yonent yàlla noo kenn mënta jur doom lu ñetti doom yonent yàlla noo de muy saam ak xam ak yaafi ñi ñoo jur arab yi ñuy jur tubaab yi ñuy jur nit ñu ñuul de wa tarak naa bàyyi nañu ale yi ci moom takk wu rafet fil aaxiri na ci ñu mujj ne de moom yonent yàlla noo nag bàyyee nañ ko takk wu rafet ci ñu mujj ne de ba tey ñu koy takk salaamun nuyoo salaamun mucc gu jugee koo ci ñun yàlla ala nuuxin aji nekk la ci nuux fil aalamiina ci mbindeef yi nuux nag ñun nuyu nañ ko mucc jugee ci yàlla jëm ci yonent yàlla nuux de inna naka ñun kadalika ni kan noonu ñu fayee nuux najzi la ñu fayee al na way yewe nañ ñe de ndaw naka moom min ibaadinaa ak aji bokk la ci jaam suñu al mu'miniina ñu di way gëm su ma rab naa toog ñu labal laaxira ne ñeneen ñi de yéeféeri ko bi woon nag ñoom ñëpp ñu labal leen de gaal yonent yàlla nuux gi nag ba muy ba ba nit ñi di dugg nit ñi di dugg ba jaan ñëw bëgg dugg jaan ak jiit ba ci melante bañ bëggee dugg yàlla daf na noox daf ne leen déedéet du ngeen dugg lu du ngeen jox ma paas ndax yéen ñi da ngeen di lor nit ñi di leen di leen màtt foog ngeen jox ma paas de ñu ne ko amul ñu la jox waaye nag ñu ngi lay dalal na képp koo xam ne xëy wax na mu xëy wax ne salaamun ala nuuhin fil aalamiina innaa kazaalika najzil muhsiniin luy màtt du ko si de jaan du ko màtt jiit du ko màtt menente sax du ko màtt de ku mënta wax laay ji waxal noox noox de ku xëy na noox noox lépp luy màtt ci bés bi yow du la màtt de wa inna min shi'atihi naka aji nekk la ci woy way toppam la ibrahima ñeel ibrahima de ijaabum ci këlee rabboo boromam bi xalbin ci xol salimin ngay aji mucc ci bokkaale yàlla de ak sikki sàkk islam ñaareel baa ngoog moo yonent yàlla ibrahima di lee seen diggante sori na mën na ñaari junni at ak lu teg Ah, ah, ah, moom nii la ko alquran jëgle de moom ibrahim nag dikkal na yàlla àndal sel bu sell de xol bu sell ci bàkkaar ak ci bokkaale yàlla de uskur jàngatal isqaala ba waxee li ab yi baayam wa qawmihi ak nit baayam ya maaga ana lan taabuduuna ngeen di jaamu ana lan ngeen jaamu de aturiduna ndax da ngeen di namm ifkan duutal kii ifkan duut ah ifkan fen ifkan ay nar ali atan yàlla duna laay walis yàlla yéen da ngeen a namm pour fenal yàlla di ko utal ay bokkaal comment zannukum luy seen luy njortu seen bi rabbil alamina ci borom de bu ngeen jaamoo lu dul moom moom ba ñëwee rek ci xisa bu gudd comme nañ ko nekk lee woon moom yonent yàlla Ibrahima waaye fekk na baayam aadara ah di jaamu këram di jël ay këram di ko jaay di ko defar bu ko defaraan ba pare yëkkati yonent yàlla Ibrahima jox ko ne ko dama nga jaay mu demee nag di ko a def naan kuy jënd yàlla joo xam ne mënta njëriñ mënta lor xam nga loolu boo koy wax kenn du jënd ah bu ñëwee rek indi bagage yi baayam na ko wax sax ñu damay wax ne kuy jënd yàlla joo xam ne mënta lor mënta jëm na ko bul loolu de mu tiina mu baayam loolu de baayam nag fi mu xamee ne kii daal am na lu yàlla kii daal mooy doom bi doon xaar ci xista bu gudd nag ñu ko nettalee woon waaye ah dafa wax yaayam na ko waaye yow yaay kan mooy sa borom mi na ko sa baay mooy sama borom mi ne ko sama baay moom kan mooy boromam mi ne ko Namruus mooy boromam de mi ne ko Namruus moom kuy boromam rek rek bi yaayam daw dem ci baayam na ko xëy suñ doom ji la bu mooy doom ji ñu waxoon doom ji nga xam ne moom la ñu waxoon mooy mooy demee mooy demee mooy demee nguur ak euh, Namrud de noonu nag Ibrahima nag nekk Aadara moom nag ah du bàyyi Ibrahima Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu taala nee na du bàyyi taxam la nee na du bàyyam bàyyi taxam la ndax léeg-léeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du jaar mukk ci jaamu ko kon bàyyi taxam rek la waaye nekkutoon bàyyam noonu nag yoon ci yàlla Ibrahima nag nekkal noonu ca waa dëkk ba nekkal ñoon ci waa ba des nag dëkk ba am nañ feet boo xam ne am na doot dañuy am feet eh, eh, feet boo xam ne dañ koy def ñu invité ci yoonu ci yàlla Ibrahima def na ko ñëwal fa nazaratam seet moom Ibrahima nazaratam ak seet ak xool wala fa nazaratam xool nazaratam ak xool fi nu fi nu juumi ca de Ibrahima nag moom xamoon nañ ni kii am na lu yàlla may bañ ko waxee ne ko da ngay dem ci Ibrahima yëg ci boppam bi rek xool ci bitti bi fa xaal mu wax inni naka man saqimun aji feebar la mu de xal na ma xal naa feebar man daal gis naa ci bitti bi daal na suba damay feebar damay feebar dama mën a dem dama mën a dem seen feet bi de jàpp ni ku daal ma teew ànd ak yéen seen feet bi fekk loolu yëpp mi ngi def pexe de loolu kenn ci mu wax ne ci naram yi la bokkoon waaye bàyyi ne benn du ci nar ba ci njëkk mooy duwaañ bi ba mu ko gisee gis euh, euh, euh, soxnaam sama ànd saarata mu ne ko kii sa lan la sa jabar la kii sama jigéen la dégg nga ak bañ na ko Ibrahima ku góor suñu yàlla yi mu ne laaj leen ko yàlla ju mag ji yàlla ju mag ji ak ñetteel bàyyi mi ne mooy bañ na ko nekk damay feebar moo tax du ma a def waaye xal naa feebar mooy man naa feebar ndax mën naa yëg ci yaramam ne man suba laa damay feebar wala seen lii ngeen di def feebar na ma seen lii ngeen def feebar na ma wala mu mu mu am feebari xol ci méttalu ci lii ñuy def di sàkkal yàlla bokkaay di ko utal yeneen yàlla def moo tax maanaam seen jëf ji daal ngeen di jëf daal feebar na ma moo tax mënuma ci teew daal fatawalaw tam eh, eh, leen mudbiriina mu di way dëddu de mu dëddu leen nag faraaga tam jeng eh, moom ibrahima mudbiriina ñu ni way dëddu de bam ne bañ waxee loolu yonent yàlla ibrahima ibrahima ne ma mën a dem rek ñoom nag dëddu ko bàyyi ibrahima daal di dem faraaga tam jeng moom ibrahima ilaa ki ilaa alihatihim jëm ci yàlla seen de te mooy këram ya ah bañ demee nag ñoom ci seen feet ga fekk dañ daan jël ay lekk yu bëri togg ko indi ko teg ko seen kanami estati seen kanami la ñuy jaamu ne yàlla teg ko ci ne yàlla yi ñoo leen koy barkeele du leen ko barkeele bari ñu soog kaa lekk ñoo na bañ tegee seen lekk yi daal di génn dem Ibrahima bàyyi leen bañ dem Ibrahima ñëw dugg si de ba mu ñëwee nag ca këram nga fa qaalu ma alaa taakuluuna lu tere ngeen lekk ñam yi leen tegal du ngeen lekk ñam yi leen tegal du ngeen ko lekk maalakum ana ana loog yéen laa tantiquuna ba waxuti leen lu tax yéen waxu leen maa ngi wax ak yéen du ngeen ma uyu maa ngi wax ak yéen du ngeen ma uyu moom xam na ne yàlla yi mënuñoo wax de faraagatan jàng alayhim ci seen kaw darban ak dóor bi yemini ci kattan de ah mu jàng ci kaw nag daal di gën semiñëwu di góor yàlla ya di góor kërémit di mu yëkk fa jaas yi génn dem de ah gars yi nag ba ñëwee fa aqbalu te julli si ilay jëm ci moom yasifuna danañu gaaw de ah ñoom nag bañ defee loolu pare ñu gaaw ñu waan nañ leen dem yàlla yi barkee na lekk yi pare ñu dem seeti de bañ demee rek fekk Ibrahima góor na mboolem këram yi de ñu jaaxle nag ku góor si njaal ku góor si njaal ñi ne daal déggoon nañ benn waxambaane da nga ko nettee suratu Taaha ah sami'naa qaalu sami'naa fattan yadkuruhum yuqaalu lahu Ibrahim déggoon nañ benn waxambaane muy ayibal suñu yàlla Ibrahima lañ ko wax kooku daal moom la ah ñu ne nañ ko indi ñu indi ko taaj taaj di ko laaj ne ko yàlla ñu ne laaj ko yàlla de ndax mu ne. ah xañ na yàlla ju mag moo ko def ndaxte yàlla yu ndaw yi ngeen koy boole moom daal ci moo tax mu leen ñoom ñëpp laaj yàlla ju mag ji de subhaanahu wa taala te moom rek mooy yàlla dëgg kenn du yàlla ko dul moom moom nag ma ngi leen di wax di leen ayibal di leen yëcci ne ataabuduuna ndax da ngeen di jaamu la nga xam ne tan xituuna da ngeen yett ko ci doj jaamu loo xam ne yéen yéen a koo yett wallaahu yàlla xalaqakum bind na mu leen wa ma taamaluuna ak la ngeen jëf de yàlla moo leen bind li ngeen jëf nii li jëf nii muy téere mi nga xam ne yéen ko liggéey seen bopp yàlla it moo ko bind ah kon li ngeen jaamu yàlla yoo xam ne mënuñoo bind dara mënuñoo wax de ah noonu nag ba loolu amee nag mbir ma daal di nekk ci dëkk ba Ibrahima Ibrahima ne daal fi ne daal fi ne lenn rek mooy pexe de Ibrahima nañ ko jël lakk ko rek. loolu nag mu demee ba nangul dégg ko muy boori dëkk ba ñu ne waa nañ ko lakk ñi ñi nañ ko lakk nañ ko taal ci safara xaalu ñu wax ñoom ne ibnu ibnu taxa ibnu ta ah ibnu tabax leen lahu ñeel Ibrahima bun tabax de tabax leen nañ tabax benn tabax boo xam ne dañ koy tabax tabax ko feesal ko matt ba fees dell ñii ñi jël ko dugal ci Ibrahima de mu dee ñu noppalu. ñépp di taxaw na Namru daal di joxe ndigal ne fekk weer fekk ñetti weer bu kenn nag liggéey liggéey bu jëm ci boppam lu dul taxaan le ñii taxaan rek ñii taxaan rek xayawaan yëpp kii moo ci bokkoon mberkel moom ci ñu doon taxaan ci la bokk moo ci gënoon di mën a sëf moom mberkel de noonu nag ci la yàlla ñaan ci la yonent yàlla Ibrahima naan ne yàlla na yàlla dog njurteem moo tax mbérkeel la amatu mbérkeel la amatu de ca yàlla Ibrahima ba tey amatu mbérkeel la ba yàlla bi amatu mbérkeel yi nag ñuy wax doomi fas ak mbaam la rek ñu leen tuddee mbérkeel waaye mbérkeel la moom yàlla dagg na njurteem ca jamono yonent loolu nag fa alquhu tañ sànni ko fil jahimi ci safara wala waaraa tañ na mu bii ci moom kay dañ pexe fajaal naawum te mu jël leen lastaliina ñi di ñu nodde ñoom nag bañ sànni yonent yàlla ibrahima ca safara wa lañ bëggoon mooy ray ko lañ bëggoon amuñ ko de ibrahima génn naa ne mucc na ci safara de ah yàlla wax ne safara wi seddal seddal jaamu ci ibrahima safara wi daal di sedd de xisa bi nettali woon nañ ko yëpp nettali nañ ko moo tax alxuraan bu mu koy sax daf koo leen ba mu génnee ci safara wa nag moom Ibrahima wa qaala wax nii naka man zaahibun aji dem na mu ilaa rabbi jëm ci borom sama de e, e, ilaa rabbi jëm ci borom sama sayahdini xal na ma jubal de man nag maa ngi gannaaw fii moom mënuñoo jaamu yàlla bëgguñ yàlla man daal maa ngi génn de jëm ci sama borom mu jubal ma de Iraq la jugee jëm Shaam waaye mi ne loolu mooy tegtale ne yàlla nekkul ci kaw de walis mu ñàkk nekk ci suuf yàlla mi ngi fépp de ndax ibrahima iraq la jugee woon di jëm Sham kon li tax mi ne sama borom laa jëm inni zaahibun ilaa rabbi su fekkee yàlla ci kaw kay kon kay ci asamaan la waaye iraq la jugee dem Sham hmm? kon kay yàlla nekkul ci kaw walis mu ñàkk nekk ci suuf de yàlla mu ngi fépp hmm. jaami ñaari xaaj am na jaam boo xam ne ci coobare ci coono boppam lay jëfee li muy jëf coono boppam la koy defee am na jaam boo xam ne yàlla moo koy defal de du ci yëg benn coono Ibrahima mii ba muy dem ci yàlla ne ci yàlla la jëm gis nga coono ba mu ca daj de ilaa rabbi sa yahdini la wax gis nga coono ba mu daj dox na moo doxal boppam dem jugee Iraq ba Sham yonentu yàlla Moussa ba muy dikkal kuntuma dox na bay bëgg dee fa lammaa jaa Muusaa li miiqaatinaa Muusaa dox na bay bëgg dee soog a àgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom subhaana allazii asraa rek la yàlla wax de subhaana allazii asraa bi abdihi laylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa ba mu jeex de noonu tamit mu ko defal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko defal xeetam ne sanurihim aayaatinaa fil aafaaqi wa fii anfusihim hattaa yatabayyana lahum annahu alxaq kon ñoom it iraatu lañ am comme ni ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi amee ne Ibrahima nag nee na ah, maa ngi dem ci sama borom te booba Iraq la jógee woon jëm Sham ne ba demee nag ba àgg baytul maqdis ci la ñaan ñaan gii de ne rabbi yow borom sama ab may ma lii ab may ma lii ñeel ma doom mina saalihiina mu bokk ci way yiw ñe de yow yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma doom booba am na téeméeri at ak ñaar de mu ñaan yàlla doom de yàlla may ma doom de fa basharnaahu te bégal ko bi xulaamin ci fero xalimin ngay aji lewet de ñi bégal ko nag na ko da jur doom te mooy ismail de yàlla may ko doom muy ismail fa lamma balaga ba mu jotee maahu ànd ak moom assaaya dox assaaya jëf ba ismail demee nag ba am ah, ah, fukki ak ak ñett ba mu demee ba am fukki at ak ñett fut doom ji gën a neexee baayam xaala wax Ibrahima nag xaala mu wax yaa bunni xaala mu wax yaa bunni ya yow ndoom sama innee naka man ara dana ma gis fil manaami ci gént de fil manaami ci nelaw annee naka man asbaxuka dana ma rendi la de ah ba doom ji demee nag ba am ba am fukki at ak ñett nag fa doom di gën a neexee baayam te koo xam ne mës ta am doom am benn doom boobu rek mu dem ba am fukki at ak ñett nga xam ne looy def sa doom ji mi ngi topp ànd ak yow yi toog rek yàlla yàlla na la na ko rendi sa doom ji de mu mu mu wax doom ji nag Ismaayil ne ko gént naa te gént ak yonantu wax yu la bu bàyyeekoo ci yàlla gént naa di la rendi de fanzur seetal maa laa taraa ana lan ngay gis maam taraa boobu jugewut ci taraa ji fi gis waaye ci rax yu la jugee maanaam loo xelaat lii ma la wax loo ci moom xam na ne dana ko def moom yonent Yàlla Ibrahima waaye diisoo mënta ñàkk def foog mu diisoog moom xaala mu moom Ismaïl ne ko yaa abbati yow bàyyi sama ifaal defal maa tuumaru la def na digal la ko defal liñ la digal de sa tajid nii sa tajid nii xal nga ma fekk insha allahu ndem soob na yàlla mina saabirina ca way muñ ñële barkeeb àndaale gaa yàlla ngo moom am na ñu àndal moo tax mu muñ Moussa moo ko ëpp maqaam fuuf waaye muñu de sa tajid sa tajid ne insha allahu saabiran la waxoon moo tax muñu doon de ba mu ànd ak xadir de muñu doon ah mi ne ko xar nga maa fekk mu bokk ci ñu mu ñëde moom nangu na moom Ismaayil falammaa aslama ba ñu jébbaloo ñoom ñaar toroxlu ñeel yàlla watallahu mu narmel ko lil jabine ci ñeel jëbale ba yonent yàlla Ismaayil nangoo nag li ko yàlla wax ah ñoom ñaar ñëpp ñu jébbalul yàlla mooy Ibrahim nangu naa leen di doomam Ismaayil nangu nañu leen di ko rek muy dem nag wax Ismaïl ci waxee rek ne ko nañ dem fële ci àll ba ma leen dem xaaf ba mu demee ba fu àq ba ju àq ba luulaa ca Makka la mu dajeeg Iblis ñu ne ko foo jëm Ismaïl ne ko sama bàyyi laa ànd na mu rendi ñoom xaaf mu ne ko rendi wuñ xaar yow mi lay rendi mu sànni ko juróom-ñaari xeer mu demaat ba ci Euh, euh, usta bu euh, ci digg bi ci usta aqabatul usta mu ne ko foo foo foo jëm Ismaïl mu ren jox mu ne ko ren jox yow mu sànniwaat bi mu dem ba ci àq ba gi mu wax ko ko mu ne ko sama di dem xaaw jur xaaw yow lay ren de mu sànniwaat bi juróom-ñaari xeer foofu la sunnaay ku aji da nga sànni xeer yooyu de. da nga sànni xeer yooyu de ah Ismaayil nag Ibrahim nag daal di dem ba ca àll ba daal di tër takki Ismaayil tër ko de ne daf koy rendi Ismaayil wax baayam na ko baay bu ma takk bu ma takkee malaaka yi dañuy wax yàlla na ko damaa bañoon ñu wax ko te man bañu ma bàyyi ma rek bu ma tënk bu ma tëkk bu ma takk bu ma def dara bàyyi ma rek ma tëdd nga rendi gannaaw yàlla na ko sax Mm. nga Ibrahima ginnaaw yàlla la ko sant ah Ismaayil Ibrahima daal teg ko bi mu ko tekkee nag mu koy ren di mënta ren Ismaayil na ko yow bàyyi fekk yaa ngi may xool doo ma mën a ren jëlal nga takk sama bëri ba doo ma gisati boobaa danga mën a ren mu jël morsa takk ba tamit ren di ba sonn mënu koo ren mu gëdd paaka bi na ko yow lu tax ren di woo. ñu ne ko yow xalil yaa ngaan may rendi waaye jëlil li naan may buur rendi de kon naka laay rendi yaa ngaan may rendi yàlla ngaan buur rendi naka laay def ba rendi de yàlla nag daal di ko oo ñu ooyee ko ci péeb yàlla bi wan naa day naaw tañ oo ko an naka lay mbir tey mbir yaa ibrahima yow ibrahima xat sa daxta dëggal nga ru yaa gént sa de gént ga nga géntoon nag dëggal mu ko de inaa naka ñun inaa naka ñun kazalika naka noonu ñu fayee Ibrahima nag si la ñu fayee almuxsinina way yewe nañu rek inna haada naka googu la ren di buñ ko digal la huwa moom al balaa un nattu la al mubinu ko digal nag nattu gu bidde de ndaxte yàlla nga am sa doom dem ba yàgg moom rek nga am ñu ne la ren di ko xamul loolu nattu la de waaye moom nangu na nattu yàlla de inna haada naka li ne naka naka ren googu ñu ko digal la woo moom al balaa u xéewal la al mu biinu gadi gu gadi eh, gu bibte ndax nangu na dogali yàlla lim dogal ci moom topp na ndigalal yàlla de wa faday naa utañ jotee ko bisikin cim xar cim xaaf azimin ngay aji màgg rek foofu rek nag la yàlla yónnee ci péyam ba daal di yónnee rek jibril na ko aca dama nga jël xar mi nga xam ne xaabil jaamu woon na ko yàlla booba ma nga woon ci aljana foofa ñu koy yafal ci jamono yonent yàlla aadama ba jamono ibrahima ña ngi ko yebal xar maa nga toll ni ñeñ yàlla wax jibril na ko dama nga jël ko jox ko ibrahima mu rendi ko rek jibril daal wàcc rek daal ko indil xar moom mu ray ko rek foofu la sunnaay tabaski jugee jugee de muy xar moom yonent yàlla ibrahima rayoon at mu jot rek yàlla dana ko sunna la e, e, e, sunna la de at mu jot rek de ngir yonent yàlla ibrahima moom moo ko defee yàlla nangul ko jëfam jooju de Cheikh Ibrahima Niass nee na ba Ibrahima rendee xaram ma ba bésab tay bii deret yi buñ ko dajale woon gaal yi man cee daw de ak goto watarak naa tañ bàyyi watarak naa tañ desal ali ci moom fil axirina ci ali ci moom kat bu rafet fil axirina ci ñu mujj ñi de salaamu mucc gu tukkee koo ci ñun ala ibrahima aji nekk la ci ibrahima kadalika nag noonu ñu fay ibrahima naji si la ñuy fayee almuxsinina way yéwe nañu de nawu naka moom min naa aji bokk la ci jaam suñu almuminina ñi di way gëm de wa basharnaahu ten bégal ko bi isxaqa ci isxaqa gannaaw ga nag ci la yàlla bégal na ko da nga doom da nga jur doom bu tudd isxaqa de bàyyi mi ne loolu mooy tegtal di wane ne ismail kon mooy ku ñu leen di ndax fóot yee werante nañ ci ñi ne ismaayil la ñi ne isxaq la waaye lu wér mooy ismaayil ndax rendi gi wóor na ne ci makka la xewoon te ismaayil moom moom moom la nekkoon moo baay kon kay rendi gi ismaayil la de waaye yenn fóot yi fuñ jëlee mooy bataa bataaxal bi nga xam ne mooy leetal bi nga xam ne yaaquba bindoon na ko yusufa ba mu ka ba mu ba mu jàppee Benyamin mu bind ko leetal ne ko tukkee na ci yaaquba kuñ sellal yàlla jugee ko ah doomi isxaaqa ku ñu leen yëg yàlla doomi ibrahim xarit yàlla moo la bind leetar bi de ñu ne loolu yenn foo leen fi leen jëlee ne kon ren di di isxaaqa la waaye li wér loolu li wér mooy ren di di la de ndax ismail moo nekkoon mag te boo gisee sax alquran ni mu ko nekkilee ren di la jiital ba pare rendi gi la jiitala pare soo ko wax ne gannaaw loolu na ñu bégal ko kon kay ismail la de ismail la ismail la loolu moo wér moo tax mi ne foofu wa basharnaahu tañ bégal ko bi isxaaqa ci isxaaqa nabiyan mu yónnantu min asaalihina mu bokk ci wayu ñe de wa baarak naa barkeel alayhi ci ñoom ibrahima wa ala isxaaqa ak ci isxaaqa wa min zuriyatihima tukkee koo ci doom seen ñoom ñaar tukkee na ci doom seen ñoom ñaar muxsinun aji gën aji baax wa zaalimun ak aji tooñ li nafsi ñeel boppam mu binun ngay aji bidde yàlla nag barkeel na isxaqa ndax moom moo jur yaquba moom moo jur yaquba yaquba moo jur mboolem yonent yi mboolem yonent yi mboolem yonent yi bani israayil yaquba moo leen jur isxaqa moo jur eesu te te eesu mboolem tubaab yëpp moo leen moo leen jur de te gis nga tubaab yi ni mu bëree ak ni ñu amee pexe ak ni ñu amee xam-xam moo tax yàlla ne barkeel na barkeel na Isxaaq ak seen doom daal di wax nag ne ci seen doom ñoom ñaar dana am lu ci baax waaye dana am ñoo xam ne tooñkat ak boppam la de koo xam ne day weddi yàlla de boobu la Ibrahima xam ne si si ay sëtam dana am ñoo xam ne dañuy weddi yàlla de. na naa ñun de xéewal nañu ala Moussa ci Moussa wa Haruna ak Haruna xéewal nañ yonent yàlla Moussa ak Haruna ci nubuwwa de kon nag jey naa huma dañ musal leen ñoom ñaar wa qawmahuma ak nit seen ñoom ñaar minal karbi ci njàqare alazimi gay aji màggale mooy firawna de wa nasarnaahum te dimbale leen ci Xipt fa kaanu te nekk fa kaanu te nekk hum ñoom alxaalibiina ñi di way nodde mooy yonent yàlla Musa ak Haaruna yàlla yónni na leen ci firawna waaye not nañ ko de gañe nañ firawna ak Xipt de labal nañ firawna ci géej wa aataynaahuma tañ jox leen ñoom ñaar ñaar muy Moussa ak Haaruna as-siraata yoon al-mustaqima gay aji jubde wa taraknaa desal nañ ak ak na taraknaa desal nañ leen alay alayhima ci ñoom ñaar ñooñu ci tagg wa rafet fil aaxirina ci ñu mujj ñe de salaamun mucc ala Moussa aji nekkale ci Moussa wa Haaruna ak Haaruna innaa naka ñun yàlla kazaalika ne ko noonu ñu fayee Moussa ak Haaruna ne bisi lañu fayee al ñe de ñoom ñaar ñooñu min ibadina aji bokk leen ci jaam suñu almuminina ñi di koy gëm de ñetteelu yonantu bàngoo wa inna Iliyaas naka Iliyaas la minal mursalina aji bokk la ci ñu ñoon ñi de Iliyaas moom itam ci yonent bi yàlla yi la bokkoon doomi mbokki Haaruna moom moo ko juróon yàlla yónnee ko ca yàlla yónnee ko ci nitam ña ca nitam ña de isqaala bu mu waxee li xawmi ñeen nitam ña lu teree ragalu leen yàlla de lu teree ragalu leen yàlla atadoona na ngeen jaamu baalan baal seen yàlla ji moo tuddoon loolu mooy tuddi këram ba baaxal la tuddoon moom la tuddoon de kii baax la bakka moom la tuddoon baax yàlla ji mooy moo tudd baax la moo tudd baalu ki ko defaroon moom moo tudd bakka moo tax ñi laafal ko ko de ne baax la bakka ngeen koy jaamu de wa tazaruuna te ngeen bàyyi ci ahsanal xaaliqiina gën jaay rafet ci bind de allahuma kooku nag allahu mooy yàlla rabbukum koy borom seen wa rabbu abaikum koy boromi bàyyi seen de al awwalina ñi di way njëkk de fa kazzabuhu tañ weddi ko ñi weddi ko de fa innahum naka ñoom la muxdaruna ñun teewal lañ ci sabara def illaa ibadallahi ne rek jaami yàlla illaa ibadallahi ne rek jaami yàlla yi al muxsinina ñi di way yewende innahu naka moom al al muxsinina al muxlasina ñi di way yewende al muxlasina ñi di way sellal de wa tarak naa tañ bàyyi alay ci moom kat bu rafet fi l axirina ci ñu mujj ñee salaamu nuyoo ala ali yaasina yàlla nekk ci ñoom yaasin inna naka ñun yàlla kazalika naka noonu ñu fayee ñoom yaasin najzi lañu fayee al muxsinina way yewende ñi de innahu naka moom min ibadina di bokk la ci jaam suñu al muminina ñi di way gëm de Ilyaasa ngóob nag yàlla moo ko yónni woon ca Baala Bakka moom moo ko yónni woon ñoom ñuy jaamu ñoom ñuy jaamu këram bu tudd Baala Bakka ñu koy jaamu de benn estati boo xam ne ku ñuy wax Bakka moom moo ko defaroon ñi koy jaamu nekk ca rek nekk ca rek ba yàlla yebal ko ci ñoom ñu ne leen yéen du ngeen jaamu yàlla ngeen bàyyi seen këram yi ngeen nekk di jaamu ah, këram bi ngeen nekk di jaamu ñoom nag ñoom ñi bañ de. noonu nag xew xoo am fa mu àtte leen wax leen dellu leen ci yàlla gaa yi mer ne dañ koy rey mu daw rek génn dëkk ba aadaay andi yaay bu buñ gisee loo xam ne àtt nuñ ko dañuy gàddaay rek dem de moom mu gàddaay dem ci àll am kontaan ko mu sax juróom-ñaari ak nekk fa rek nekk fa rek àtt nu dara la tàbbi woon ci asaabul kafi tàbbi ci moom gannaaw loolu nag yàlla wax yu ko na ko génnal dem ci barabu sàngam lépp loo fekk mu nekk rek na ko war ta ko ragal mu ñëw fekk fa benn fas ah fas waa ngay tàkk safara ci melo fas la waaye mi ngi tàkk safara mu ñëw rek war ko mu war ko rek mu dem moom de éeg moom boobu ba léegi boobu ba léegi ñëwut de moo tax deewut ba tey ñeenti deewut muy is muy Isa yonent yàlla Isa ak Ilias ak Idrissa ak Xadir ñeent ñi deewuñ ba tey de ñaar ñaa ci kaw ñaar ñaa ngi ci suuf ñaar ñi nekk ci kaw mooy mooy Isa ak Idrissa Ilias moom mi ngi ci suuf ak Xadir de at mu jot nag ñoom ñeent ñooñu deneen dajee ci Arafat ku nekk dénk sa morom sa morom ñi damaat de ba léegi deewaguñ de ñu ngi ci wax na sax ne ñaareel soo leen ñan ko de wa inna lootan naka loot la minal mursalina aji bokk la ci ñun yónni ñi de yónentu yàlla noo xisa juróom-benn bee ngi noonu moom itam bokk na ci yónentam yàlla yi nga moom la yàlla yónni woon de is na jee naaw ñu musal ko wa ahlahu ak ñoñom ajmaina mboole seen de illaa ajuusan dereb toboronku fil gaabiriina aji bokk ci aji des la ci mbugal ma de yonentu yàlla lool tamit yàlla yónni woon na ko ci nitam ña waaye nitam ña dañ koo weddi de yàlla daal di ko musal moom am ñoñom ba mu des jabaram waaye la te de moom ci mbugal ma la bokkoon ndax daf doon pexe ànd ak gaa yi de suma damar naa topp ñu la leen suma euh, euh, damar naa topp ñu alak laaxiri na ñeneen ñe de ñeneen ñi nga xam ne gëmuñ ko woon moom moom dañ leen a alak de wa innakum naka yéen waa Makka la tamuruuna way rombu ngeen alayhim ci ñoom musbihiina ci xëy wa bi leyli ak ci guddi de heure bu ngeen xëyee yéen a ngeen di romb di tukki di dem Sham di commerce kon yéen gis ngeen ñooñu di afalaa taaqiluuna lu tere ngeen xelu ba gëm yàlla ba gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ne bu ngeen ko gëmul la wàccoon ci yonent yi dana wàcc ci yéen de wa inna yunusa naka yunus ala minal mursalina aji bokk la ci ñun yónni ñi de is abaqa ba mu dawee ilal fulki jëm ci gaal almasoni nga di buñ feesal de fasaaxa ma tañ wantale ñooñ gaal ga fa kaana tam nekk minal mut adina ci ñu not ña de yonent yàlla yuusa ngoog nag dafa waaroon nitam ña yàlla ñu ko yónnoon ca Iraq ca Mawsal ca niin waa fa la yàlla yónni woon de ba demee nag moom yonent yàlla euh, Yunus yàlla yónni ko ci niin waa ba ko ba yónnee nag mu waar nitam ñi ba sonn nitam ñi bañ moom yonent yàlla Yunus mu mu mu daal di ñaan yàlla nag ne yàlla yàlla nga leen alakteeg yàlla na ko yàlla mu ko ñaanam mu wax di dem ñi ne leen su ngeen gëmul yàlla fekk sa bés sàngam mbugal dana wàcc seen kaw de daal di leen tëkkoo loolu wax leen nag ne balaa mbugal mee ñëw da ngeen gis ay mandarga ba mu leen waxee loolu rek daw daal di génn dëkk ba rek gàddaay dem toog ca ba rek mu toog ay fan nag lu yàgg mu gis ne mbugal moom waxoon nitam ña dafa mel ni dalu leen mu laaj kenn laaj leen ñu ne ko say nit ya ña nga bàyyi woon ca gannaaw ñoom tuum nañ dellu ci yàlla baalu nañ yàlla ba léegi ñoom ñëpp dañoo gëm yàlla de Yunus nag ba ko loolu dalee mu am kersa pour delluwaat ci dëkk ba rek mu daw rek daal di dugg ci gaal dafay dem beneen réew sori dëkk ba rek ba mu mu dugg moom yonent yàlla yunus ah gaal ga nag di daw di daw ba ci digg géej ga rek gaal gi taxaw rek daal di lakkati ñoom capitaine yi gaal gi wax ne suñ gaal lii bu ñu mosoon a dal suñ gaal gi jaam buy daw sangam la de kon daal am na koo xam ne mi ngi daw sangam génn na te sangam yëgu ko de noonu nag bu amee dañuy wantele ñu wantele bañ wantelee rek bant bi daal di dal yonent yàlla yunus ba mu ko dalee nee déedéet kii moom du moom kii yonent yàlla la ñi wantele waat mu dal ko ñi wantele waat mu dal ko mu ñetti yoon mu xam ne moom la dem moom mooy moom mooy jàmm bi daw sangam mu daal di moom moo génn ci lu dul ndigal de mu yor boppam rek ci géej ga de ba mu yoree ba boppam ca géej ga nag bu ne fal taqamuhu ta ta ta ta lokko ta wan na ko alhuutu jën wa de wota moom mu lii moom aji dikkee la luñ koy yedde de ndax dem na ca géej ga war gaal ga ci lu dul ndigal de fa law laa annahu donte nga ko doon nga ko moom kaana nekk na minal musabbihiina ci way sàbbal ña bu taxtoona bokk gi bokk ca way sàbbal ña noonu nag bam ba ko jën wi wannee rek jën wi nag ba mu ko wannee rek yàlla daal di wax yu jën wi a wax ilham na ko ne ko du sa dund tey de dama koo def rek dama koo def rek pour nga dencal ma ko de dama koo def pour nga dencal ma ko waaye nekkul nekkul sa dund tey bul si ci sidi tamit dara bu sidi tamit dagg bu bu yaxam yi damm bu bu yàppam yi dagg tamit dama la ko dama koo denc ci yow de waaye bu ko def dara noonu nag mu nekk moom Yunus ba mu nekkee ci ci ci jën wa moom yaakaaroon ne dafay dee waaye dafa toog rek gis tànk bi di yëngatu mu xam ne deewu de mu daal di su jootal yàlla ci biir jën wa mu su yàlla ci biir jënoo bi ne dinaa yàlla ci barab boo xam ne kenn mënu ko fee su joote su joot nag ci guddi gi rek mu dégg jën ñi nga xam ne guddi dañuy sàbbal yàlla di sàbbal yàlla ba ñuy sàbbal rek mu sàbbal ànd ak ñoom ne ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu na azalimin de ah tudd yàlla nag ne man bokk naa ci way tooñe de bokk naa ci way tooñe bokk naa ci way tooñe daawaa boobu na budduhu dëgg foog yàlla dalee xalak de yonentu ba mu ootee lu dul dëgg ne laa ilaha illa alladi amana bihi banu israil wa ana minal muslimina dafa oote lu dul dëgg de yàlla dàdd ko ñu waxee ko xaat ci péeb yàlla ba ne ko déedéet waxoo dëgg innahu kaana aliyan min al musrifina yow ci yàqkat yi nga bokk de yow ci yàqkat yi nga bokk yonent yàlla yunus bi mu waxee loolu ne laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min al zalimina eh, eh, eh, yàlla nag ne bu taxutoon ak moom sabbal gi muy sabbal yàlla ah kon de kon ah, kon dana dana mu bokk ci ah, ah, ah kon dana mu bokk ci way xalaku ñi de noonu nag ah, oh, oh, buur ne bu tax doon ak loolu sàbbal gi muy safar yàlla kon le kon le le bi mu sax fii bat mi ca biir jën wa ilaa yow mi yubaasuma ba bés ba dem na dekkal ñi ñi de kon de dootul génn mukk dana def ci géej ci jën wa dootul génn mukk de waaye sàbbal gi ni safar yàlla a ah, ci la yàlla yàlla muccal mu génn de ba mu waxee loolu nag yàlla daal di ko wax ne ko déedéet de yow yow ci jaami yàlla yu tedd ci nga bokk de yow ci saali añee la bokk yow ci yow yow ci yu baax ñi ci nga bokk de ci ci tuddukat ci ñi nga xam ne ñooy fa annahum kaana minal musabbihiina yow ci ñooñu nga bokk waaye bokkoo ci tooñkat yi de baata ngoog boo xam ne képp ku ko wax rek boo nekkee ci njàqare ya ko waxee yàlla dana la dindi njàqare illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin de képp ku nekk ci njàqare ko waxee yàlla dana ko dindi njàqaram ak hasbunallah wa ni'mal wakil ak wa fi amri ila allah inna allah basirun bil ibad dawa jàng doon nañ ko daaw de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahumma salli ala sayyidil awwalin wal yàlla mu nga tàmbali waag si bi yàlla mu nga àggale jàmm te faccee def loog yàlla bi yàlla mu nga xam dëgg-dëgg yàlla nañu ko xamal barke alquran yàlla ka nga wasale kii ko wasal ci moom ak di tax ñu wasal ko ci moom yaara bi barke diine islam barke tariqa Cheikh Ahmed Tidiane barke maam alhaaji Abdoulaye barke Baye allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillah